li jàngalekat yi doyul ak situation wu décisionnaire yi soxal na lool union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal. ñu tey Ali kala ji mooy jàngalekat yi doyuñu dañu manqué te loolu nguur gi nangu na ko <laughs> yan pexe la war a def loolu mooy waxtaan bi parce que ñun dañu jàpp ne am na loo xam ne mënuñu ko nangu mooy ñu jël ay nit yoo xam da leen di jël rek indi leen si école bi te amuñu formation parce que loolu moom lañ defan bee passé loolu dafay am njeexital ñaari yoon si si si njàngalekat yi muy suñu nattangoo yi nga xam ne jàngalekat yi nga xam ne dañu nekk ay décisionnaire nga xam ne suñu nekkee si ak ñoom si école bi daanaka ñooy tolloo luñ def mais gisan nañ ne am na ay jamono ñoom suñu góorgóorloo ba am seen i lijaasa yéen war a jëme kanam état danaan du ma dellu ginnaaw du ma rétroactif. école bi ubbi na daanaka te école yu bari ndox maa nga fa. kon li ñuy ñaan mooy état bi mu def kem kàttanam ba fii ak ay bis école yooyu yëpp ñu dindi ndox ma fa nekk pour xale yi mën a dem jàngi pour que du ñu am benn perte si wàllu njàng mi mais aussi ñu ngi ñaan collectivité locale yi parce que bu leen fàkkee njàng ak njàngale dafa nekk lu ñu ñu décentraliser jox ko jox ko. Euh, collectivités yi ñoom aussi nañu xam ne doom yi seen doom lañu njaboot gi seen njaboot la. Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal li ñu bëgg mooy nguur gi taxaw ci nekkinu décisionnaire yi ak chargé de cours yi waaye mi ngi rafetlu bu baax li nguur gi wàññi inscription ci yenn école publique yi.